mais Maimouna Ndour Faye su toogee ñi libéré ne Macky Sall moo ne woon ay terroriste lañ jël jàllaxaat leen ci dëkk bi li Macky Sall waxoon la wax mhm. ñooñu suñu commencé ci ay Facebook di menacé Maimouna Ndour Faye j'ai vu benn genre ni ngeen baal ma ci kàddu bi du ma ko jàppee doomu aadama parce que man mbaam laa ko jàppee xaw ma lan santam sa sant la yor ba pare teg ci Touba naan Maimouna Ndour Faye jógooguñu si moom suñ jógee ci moom dina xam lépp am na ñaaw na ñaaw mhm. du yoon ne ko kii mooy xaw ma lan caga avenue de la république est-ce que am na carnet de prostituée suñ ko waxoon ndeyam dina ko neex. dëgg dafa mës a fekk Maïmouna Ndour Faye muy mm. ñu def pour dénoncer les menaces par rapport aux journalistes personne l'a fait. léegi ñu xaar ba Maïmouna Ndour Faye dara tam tuuru ñi naan ay communiqué ak may wax Bamba Kassé di xëy suba teel di def communiqué naan waaye Maïmouna Ndour Faye on était enquêté elle est hors de danger. ok est-ce que ñooñu du ñu reculer wala kii xam na ni que ñii kat seen corps de métier dafa solidaire mm. toog ba ci ngoon si neen dañuy def rassemblement boo xamante ni ñu koy def buntu 7TV quoi ça sert mm-hmm. xam nga lu ñuy def may mun a dañ koy ñaanal fa mu tëdd mu jóg fu te mm-hmm. insha allahu rabbi daf fay jóg su dellu suwaatee bu teg ci plateau dolli buum ca mboy mboy ba mm-hmm. menace ragalalul kenn xam nga lu fi des nag état dafa am ministre l'intérieur am justice la qui assure tout. pour ñun suñu la maay maay liggéey fay leen sama taxe. dañ a ci responsable.